التوحيد والسك عليك أجر عليهم سورة يرسل جنة وأحنا في ناس أسر الأرض السماء والأراضي والهو بها مساكن أجب سليف أعزابهم بايهم بقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxtaan wi xam xam naa kon moom ñu ngi koy jagleel jigéeni faydu yëpp sax ko moom nag lislaam rek la lislaam moom ñëpp ci moom waaye la siñ saa yu daa wax naan te wax ma ma ngi koy ñaan sa sama bokk jullit ñi waaye ñi nga xam ne ñoom sëñ naa lay digal maa ngi koy digal bu wóor moom maa ngi koy digal bu wóor waaye kon noonu rek ñu ma ko ko sañ a digal maa ngi leen koy digal bu wóor xam ne man loolu mooy sama cofeel nit ku nit jigéen ju yiw nit ku yiw loolu moo ma neex lool lool sóor su nuur bi bi ma gisee dama caa big lool di wax ne Sayyiduna Omar adiyo sala taala anhu moo ma sa ne nekk néegam digg bëccëg ji saa sa xawraat yooye xam ne ñetti awra la yoo xam ne kenn kenn waru ko fe fekk dugg ci dem ci kër ni sax lañ wax moom la alxuraan wax mooy ginnaaw julli suba ba yoor yoor ak ak ginnaaw tusbaar ba takkusaan ak ak ginnaaw gee jot yooyu xam ne moom moo ci asam rajo Seyduna Seyduna Omar nag nekk ci néegam rek benn xaadim kenn ci xam naa ñi liggéey ci kër gi rek njëkk na ba ñaax ci ci néegam te nuyuwul si na Omar daal tàng jër te ginnaaw kon booba xamagut lislaam lu mu ci àttee kon da ginnaaw saa si la fi moom booba booba saa su problématique juddoo rek da ngay daal di dellu ci yonent bi alayhi salaam ndax ndax mooy almarjongul awwal wal axiir référence ba laaj ko waaye doo sañ a balal boobaa lu lu lu lu mu yónni woon kenn ab góornoor fenn bo bo bo maanaam wax abu sar lépp naa mu muwaas saa soo demee ba ak gis ab lu loola gën a fooy dellu mu ne ko xanaa ci alxuraan boo ko gisul mu ne ko xanaa ci ci sayum njàngale mu ne ko nag mu ne ko nag boo ko boo ko ci gisul mu ne ko ajtahidu ra'yi wala aalu kon danaa danaa jéem a ballalu waaye nag du ma ëppal nag du ma jëng kon kon Seydou Seydou Seydou Duna Omar ay yëf yoo xam ne ay laajam la ci la ci la saar yu bari wàcc sa saar wi suuratu nuur la yàlla wax te nga seet loolu ba noppi seet loolu ba noppi moom kii suuratu nuur la wax su borom boo demee ci misil foofu day wax annonce la annonce annonce la suuratu nuur saaru leer loolu kon kon kon kon leer na mu ne surtout ansel naaxa wa farat naaxa wàcc nañ ko leeral ko farat naaxa wa ansel naa fiiha ayatin bayinaat ñu wàcc ci moom ay aaya ne woon naa ko ne aaya nag mooy ku si war a taxaw seetlu alhamdulillahi rabbil alamin boo ko déggee taxawal ba xam lu lu mu bëgg a wax mu ne arrahmaani rahim dee tax maliki mu diini moo tax kon loo cee war a def yow iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin kon ngir ngir loola jafe na ihdina siraatal mustaqiim yoonu jub jëm sawara bari na siraatal laziina an'amta alayhim ku yàlla jox xéwal ba noppi mu mujj weddi ko bari na ni yahuud yi xayril maxduubi alayhim wala daalliin ñi nga xam ne dañoo am xéwal ga for jafe xéwal ga borom bi it am na mooy nasaraan yi yàlla yàlla musul ci seen bukkaar yi laallakum tazakkaruun addikra fa dakkir mooy wax gone yi di leen fa dakkir mooy loo xamoon la ba noppi yu baax yi yëpp ni ko ni ko ni ko ni ko cheikhul fuqaha waxoon ibnu abdi salaam man man de dëkkoon misra ak ma faqi mag moon daa waxoon ne daa waxoon ne lépp lu wa lu lu alxuraan wax xel xamun na ko ma ne waaw fasakir la wax fasakir fàttaleel kon daal tasakkaroon bi nga fàttaliku li xel yi xam xel yu set yi wax ne azaniyatu wa zani fajlidu kulla waxidin minhuma miata jalda wa wa taxus wa taxuskum bihi bihima rafa fi dinillahi murduuna bi daxil mi axir wax loolu moom ab àtte fiq la waaye bii ñëw moom lañ soxla noonu Sidna Omar wax wax nañ ne bokk ci muhajirin yi de boobu yul dara muhajirin yi ñoom dañoo bàyyi seen alal ba seen lépp ñëw daw ñëw mu am ay taxawalkat yu nekk Madina nag ala saakini haatu sar am xaalis lool nga am ñoo xam ne dañ cee takk wala dañ cee bëgg a takk Sidna Omar Sidna Omar ñu ñu wax ko Sidna Omar dama de daa daa day dem laaj yoon si ne ko ndax ndax daggan na ma takk ci ñoom ndax dimbali ko ko ñu ñu laaj ko yoon si ne ko ne ko ci xaaral ba wax yu wàcc wax yu yàlla ñëw azzaani laa yankihu illaa zaaniyatan aw mushrikatan aji njaaloo moom warut a takk ku dul aji njaaloo ni moom aw mushrika wala sax ab yëfarfar ndax ñoo niroo doon doon te ne moo tax ne yëfar ba bu dee jullit la wa zaaniyatu laa yankihuhaa illaa zaanin aw mushrik aji njaaloo ju ju jigéen ji kenn du ko takk ku dul ab aji aji njaaloo ni moom aw mushrik wala koo xam ne daa daa weddi ndax ñoo ñoo niroo waaye nag njaaloo bu bu góor bi bu jigéen bi nga xam ne moom ab jullit la moo gën yëfar bi. kon kon kon moom takk yi kon kon kon daganam takk yi koo xam ne xel li ma ko ak ñoom koo xam ne dangaa am taarix boobu ku commencé njaaroo bu dee góor la mën naa dem takk ku njaaroo woon koo xam ne dafa nja ak njaaroo ju jigéen mën naa dem sëy koo xam ne dafa njaaroo woon wa xurima dalika alal muminin foofu la foofu la seen omar mu daal di génne fii moom muslimin yi la dagan waaye mu'min yi ne daganu ci ñoom ko ma ne si seen aliou ma ne waaw tunaa si si damar radiyallahu anhu waan waan naa bi koo xam ne moo war a moo war a doon maami Omar ibn Abdul Aziz al xalifatul xaamis min ar-rashidin alayhim ridwan ajmain wala ixwanihi min as-sahaba al kiram kon ko kon kon kooka kon wërta doon takk soxna soo xam ne bu ñu ne kat doomi Omara radiyallaahu anhu maa do nga ñu ñu ne doomi soxna Omar sa sa daa nangam bu daal di indi origine nga yar moom la moxsanaat su ma la mu yaatu bi arbaati shuhadaa kooku ab atteb ab atteb fiq la moom waaw waaye moom ñu dem ba ci ca kanam yaakaar naa yaa ci naa mënul laa tattabiu xutuwaati cheytaan wa man yattabi xutuwaati cheytaan ya'muru bil fahshaa'i wal munkar walaw laa fadlullaahi aleykum wa rahmatuhu maa zakkaa minkum min ahadin abadan walaakinna llaaha yuzakkii man yashaa'u walaahu samii'un aliim ma lay wax nag buñ topp jéego si seytaane ku topp jéego si seytaane seytaane lu mu koy digal mooy fahsha ñombe munkar lu ñu weddi lu baaxul bu soon ngeen yàlla ci yàlla ci yéen day kon ak yërmandeem kon day du sellal kenn ci yéen waaye yàlla na ko comme ne comme koo neexam sellal ko yàlla boole ci ñoom muy sellal waaw mu daal di indiwaat ba tey arse fiq la la ba tey rek mu am mu andi nag alxabisaatu lil xabisiina wala xabisuuna lil xabisaat am na ñu koy firee neen waaye waaye day mel ne alxabisaatu jigéen ñu jëng ñi buñ leen dee maye nañ leen may góor ñu jàng ña bu doom juddoo foofa du doom ja du du amul kersa ci waaw baayam ak ndeyam benn la xam nga Seydunaa Noohin alayhi salaam soxna sam takk mu di yéefar wala bokk soxna sa bi wax yu gi ñëwee nanguwut tax tax na doom je ba mu ju- juddoo dafa doon yëfar kon kon léegi takk jigéen ju baax bu bu dee góor gu baax la jigéen ju bon nañ ko may ji góor gu bon wala xabisuuna li xabisaat góor ñu bon ñu nañ leen jox jigéen ñu bon ña wa tayibaatu gaa yu baax ya jigéen ñu baax ña dañ leen jox li tayibeen un plus un égal deux ci lu baax ak ci lu bon wa tayibuuna li li li tayibaat gaa yu baax yi waaye ay waaye nañ leen rikk waaye nañ leen jox jigéen yu baax ña loola loola lu am solo la loo xamante ne bu bu bu bu ñu doxewoon ca ca noonu kon adduna du du yàqu la la la sëñ Moustapha Saarihu mi ba sama bàyyi nelawee mu mu ñëw Madina di ko jaale ba muy agsi ba muy toog ci lal bi rek ba muy jékki rek ma ma ma ngay wax man muy waxee rek waaw bu bu ñëwoon ci yéen de lépp jàkk su su su sëñ bi de ba muy tànn dafay bàyyi woon pëpp gi ak xar gi. ku ko du dugal sa sa kër dañ ci xam dara daal di ree mooy lii rek waaw ak tey baatu li tey bii la loolu rek lay wax axwaan la léegi nag si si na Omar nag daal di ñëw mooy bagaay yi du duggee ci ba ba mi nee na ma nee na ba ñaax ca néegam te te te nuyoogul booba nag at yi booba ak sigut booba yaa si naam waaye nag loolu loolu ma ñëwul si ma mayu ko waaw seen si noonu Abdou Salaam daan wax waaw yaa si na amoon laa tadxulu buyutan xayra buyutikum di ko di ko waay yéen ñi gëm waxu waxut jullit ñi de mooy jullit bi gëm la wax al imaanu mooy al isaan mooy nangu bu yàlla waxee nga nangu doo ci am xel yaar yaa si na amoon yéen ñi amul xel yaar ci su ma waxee laata tadxuloo mu rikk bu leen dugg bu yotan ay ay néeg xëy na buyutikum loolu seeni néeg xataa testa émission lu dul da ngeen a yëglu bu ngeen yëglu ba ba noppi nag moom mag ñi dañ daa xëcc xaddame ko xaddame ko fë fëgg gi sax noonu noonu xamuñu ko fëgg fëgg yooyu xamuñu ko xaddame ko wala nga fete su taal fete su it nag kilifa koy def waaye ci waaye gore du ko def ci aaday ci aaday murid yi saa ko wax sëñ Bakki Lo Mouhamed mu di waaye daa fete su fete su ma ko sëñ Bakki dee bu fete su ku mel ne yow wata fete su noonu fete su kër mag ñi magi murid ya buñ déggee fete su dañu xam ni kilifa gaa fete su ma ne ko waaw bu ñëpp dee fete su ku ku wuyu kuy wuyu kon ah kuy wuyu waaw waaw wasallimu ala ahliha soo yëgloo noonu yëngu sama baay bu ma saa jógee suñ ma kabat wala jógee ci biti ba ba ñëw Madina ci buntu kër ba lay xandeme ko kër gépp koy dégg moom mosu mosu daal di ne asalaamaaleykum ñëpp dégg ko diggante xandeme ko gi ak nuyoo bi ñetti yoon dana tax lu waay nekkoon te bëggoo mu fekk la ca da nga da nga njëkkandikoo waaw waaw métti baxut wasalimu ala ahliha nga nuyu nag waa kër ga asalaamaaleykum yëglu bi mooy xandami ko ka wala daal noo def ba njëg la nga soog a nuyoo asalaamaaleykum gaa yi daa am lu lu yoroon loo xam ne di ko bëgg a denc ba gis ko ñu nekk ca xam xam kon duñ la fay nga may leen tuuti asalaamaaleykum gaa yi bagage yi xam naa daa xaw a kii ba ba tey dafa fayuñu la nga may leen tuuti asalaamaaleykum muy ñett kon nga may leen tuuti bu ñu leen wax ne bisimilah da ngay dëpp am na am na feneen fu mu fu mu wax sax ne yëngu ci moom bu saa xiilal ko mën jiwoon waaw ne bu ñu la waxoon sax ne ne la sëñ bi may ñu damaa jàpp irji'u irji'u daalika azkaa lakum loolu moo gën a sell ci yéen waaja mën naa am lam yor xamut fan la koy denc ci ne ko soo dikkee di am njaayeen faaw nga gis ko waaw foofu ma ne sax dem gi de xool mu gëne da ngay ñëw fekk waaja mu yor sax lu ñuy misaal cigarette la yor nangam yàmbaale yor boo koy gis ko oh waaye aji ko aji ko bon la gis naa ko mu yor cigarette la yor la fekk na yow yaa ngi toog ci nangam yu bon yoo xam ne moo araam lool te lii sax dañ ko si por nga bàyyi fas la yu bon yow jàpp ne yow mucc nga yow topp ca yuñ sib ya sa fas ñàkk xam jàpp ne dafa xaram te xaramut mooy mooy sigaret lancé bu dee yàmbaa bu mu araam na yàmbaa ja bu araamee it waa ji waa ji mën nañ njaalookat ba noppi kenn kenn xamagu ko muy muy sol daraam di wéy naan waa ji xool ko rek fekk fekk naa ko mu wér yàmbaa te moom njaaloo moo gën a for yàmbaa bakkaar yi ay ay dëgër la daalikum xayrun lakum nit nag mën na ne ne yàmba kat drogue la sàngara waaye loolu da nga ko caa laaf kon te sàngara da nekkoon naa ko umul xabaay su fekkee kon daalikum xayrun lakum nuyoo googu yëglu soog a nuyoo may ko ab diir nga dalal ci ci ci ci nga dellu nga ne loolu de mu mu gën ci yéen laal lakum tasakkuroon te waaye du ngeen fàttali ko ne kenn ku ne ci yéen kat daa am ayiba bëgg ñu suturaal ko boo bëggee ñu suturaal da ngay suturaale. mu ne fa lem tajidoo fiihaa ahadan su leen fikkul ci kër ga nag ci néew ba kenn xam nga ne ke néew bi benn waaye na la ke ke néew bi de waaye xëy na bu dul lool néew bi moomu ko waaw xa du xulu xaa léegi ko dugg de xamoo waajal lu fa denc waaye waaw su su sootee woon ab xaalisam nag fàtte ko fa génn dikk fikku ko fa gone fa dugg waaye yow gone nga ba mu dugg gisuñu ko yow mag mi la la gis nga dugg ba ñu ah diw sangam de moo fi duggoon ah man te teewoon naa fii dara fala tadxuluhaa hattaa yu'zana lakum bañ digal leen ne leen dugg leen ay waay islamal kii moo civilisé moo xay wen tere lakum ar-jima' xay nag mooy civilisé xay xay mooy civilisé waay udxila lakum ar-jima' farja'u huwa azkaa lakum xay di nga xam naan moom da nga naan Cheikh Moussa dafa dafa xay Cheikh Moussa dafa xay daa xay ne nee na dara yi sax nee na day cëkk xanaa ne su su ko bàyyee du laal suuf waaw mu ne kon mu ne kon mu ne laysa alaykum junaahun an tadxulu ok wa in qiila lakum irji'uu farji'uu wa azkaa lakum mooy li ñu waxoon sànq bu leen dellu leen nag dellu leen wallaahu bimaa ta'maluuna wallaahu bimaa ta'maluuna aliim léegi nag yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a bett waaja soxna soxna soo xam ne waaye yàlla ko yàlla yërëm buy dugg ci ci am néeg day lafu def nii rudo bi seen ba ba dugal bopp bi ne la asalaamaaleykum oh on ko yërëm naa sax kooku sax xamul diina xam naa moom waaw wala subillah laysa alaykum junaahun an tadxulu buyutan xayra maskuna xayra maskunatin fiiha xayra maskuna fiiha mataun lakum da ngaa doon dox ba fekk kër gu kenn ci ci àll bi nii rek wala ci dëkk bi yow da ngaa doon tukki ba dugg ci ab dëkk gis fa kër goo xam ne tey seng ba dem na dara ñëw fa te say bagage diis na nga bëgg a dugg ci dëkk bi gënaat nga teg ko ci biir néeg bi ab ruq rek daa dem foofu nee na moom fiihaa mataa'un lakum nga xam ne yéen am ngeen fa ay bagage da nga faa dencoon ay bagage koo kooka nee na foofu moom mën ngaa ñëw dugg kër gu kër kër gu kenn kenn dëkkul kenn nekku fa wallaahi yàlla xam na nag maatu na ah ah da nga xam nag ne ne kër gi kenn dëkku fi de waaye nag bàyyil xel la nga fay def de yàlla nee na maa ngi xam naa li nga feeñal ak li nga nëbb waaw waaw waaw ndax man ngaa piyeese kenn foofa islam daa bëgg ko ku sel rek waar ñu nag ci jigéen ñi nag surtout nuuru boo gisee nga rek lépp di leer gi leer la aada yu tedd yi lay wax am xay civilisé qul lil muminina yaxuddu min absaarihim yow salaay salaam waxal way gëm yi wax dul ñi de ñi nga xam ne waxal ñi nga xam ne su ma waxee ba daaneel ñu jëfee ko ñoom waaw saxaaba yi kiraam subhaanahu wa taala lañ koy wax dégg nañ ko jëf rek ci des waaw kay mu ne ñooñu wax leen ñooy damm seenu gis dammu gis mooy ngay xool fi nga teg sa teg sa tànk saa boo siggee ba seen sa bët na gegg ci lu war nga sëggaat kon kon li nga naan li nga wax naan jigéen jigéen ju baax day dox doxee nu naat day si gëg siggi naan nii si gëg siggi day xool fi mu war a teg tànkam siggi nag xool ba xam ci kanamam dafa ne sëggaat loolu daa xam doxee nu naat waaw xam naa ko xaw ma ba xam ñi ñi ñi ñi ñi yaa dégg wax ji na xam ne comme nit doxee nu naat naat dafa yi dafa yiw wa yaxfadu furujahum ñuy waj ñuy wattu seenum pëy ba du njaaloo yàlla bi bi muy tagg sayyidatuna Maryama loolu la ko taggee musta njaaloo dafa set dafa sell moo tax ma jox ko doom ju sell daalika aska lakum loolu day moo gën a sell ci yéen inna allaha xabirun bi bi maa yastawun nag yàlla yàlla ne man day ku ku ku dañ kumpa laa nit daa bañ kumpa yàlla moo dañ kumpa yàlla ne ko dañ kumpa laa man expert expert expert bu am na loo xam ne boo ko laajoon ci ci la mu jago jagoo am na lu fi xamut lu lu cee yees kon loolu waxin na rek waaye yàlla ay xabiir moom mooy expert boobu kon kon góor ñi la la jëkk a wax loolu wax daal di wax ne ko waxul lil muminaati waxal jigéen ñi ñi nga xam ne su ma waxee ba daaneel ñu jëfe ko ñoom yaxdudna min absaarihin nañuy damm seen ak gis wa yaxfadna furujahunna nañuy wat seenum fëy wala yubdiina siinatahunna ay waay bu ñu feeñal seenub taar illa ma dahara minha lu dul la ci munta ñàkk a feeñ léegi nag ñu ne waaw kon xar kanam bi la moom ndax ci la bët yi nekk bakkan bi nekk ci nangam nopp yi nangam tikk jara bi ndax bu jàpp dara ak nangam tànk yi dojor bi waaye loolu moom ko ne waxee na waaw loolu loolu nag moom ñoo koy xaat noonu ab taar fi noonu maanaam léegi gox bu nekk ñoom la nga xam ne mooy mooy taarub jigéen bi mënut a ñàkk a feeñ ngir liggéey ba ndax bu duggee ba ci biir kër gi sax nekk fa kii mag a mag waaye du jëkkëram ak yaayam ak yooyu may nañ ko sax ba ci coñtal yi ndax bu doon fóot ak yooyu kon waaw mu ne kon wala yubdiina siinatahunna illa ma dahara minha mu ne wal yadribna bi xumurihinna seen musóor ya aaday arab ya booba boobu sax aada aada yooyu moom booba jigéen ñi dañuy dañuy dañuy ubbi dënn bi dañ koy ubbi ummi dañ koy xar ubbi ko soo soo boo am ne kan soo boo am indi ko coono ne néew la ngal mbu mi dane ko jëlal jëlal wenn lafu sa musóor gi ngi làng dugal ko ci biir mbu mi jeex na waaw sa sa moom suñu la néew la ndax bu yàlla woon ñëw nangam ñu naa ñëw boobu kat mën na xewi léegi mu mu yàlla mu daal li mu soxla rek mooy nga muur ko waaye yadribna bi xumurihinna ala juubihinna xar-xar ya dugal ca dugal ca kol ga. wala yubdiina siinatahunna bu ñu rikkawaay bu ñu feeñal seen taar ba. illaa li buulatihinna taar ba tigi. taar bi tigi. bul ko wan lu lu lu may seen jëkkër ya seen borom kër ya baax la mooy borom kër dëgg dëgg ci wàll ni ko ni ko murid yi di waxee baaxlu mooy borom kër aw aabaa ihin na wala seen baay ya yéen li mu takk ñooñu moom li li li feeñ ci yenn si yow xam na ne moom mënu jax jot aw aabaa i boolatihin na wala sa baay yi borom kër ya seen baay ya xam ne ñoom mënuñoo jot ci yéen moom moom buñ fase woon ndax seen yéen a takk moom aw abnaa ihinna seen i seen i doom sa doom yi borom kër sa doom yow ci ci ci xel mu sell la mënoo koo xemmeem ba jot ca aw abnaa yi boo latihinna wala seen doom yi borom kër ya aw aw ixwaanihinna wala seen mag yaag seen rakk ya yu góor ya ñooñu moom ñooñu moom aada mënu ko maye aada aada aada ju baax aw bani ixwaanihinna wala sa doomi ma mag ya sa doomi mag yu góor sa doomi rakk yu góor ñooñu moom moom aada mënu ko maye ñu lay rakk aw bani axawaatihinna wala sa doomi rakk ju jigéen wala sa doomi mag ju jigéen yow ndaw si kon yow moo ko takk moom mu la takk kon kon moom aw nisaa'ihinna wala jigéen ña nga xamante ne kon moom jigéen ñi ne ci kër gi ñoom mën na mën nañoo gis nag sab taar cooñkeel li ba ci loxo bi nangam mën nañoo gis sab dënn ñooñu moom bu bu dee seen xel yi sell na maanaam léegi duñ wàññi dara aw maa malakat aymaanuhunna wala bokk ñi nga xam ne ay jibéer lañ dañ dañ leen a dañ leen a jënd booba jamono ji jënd xewee ab jaam muy góor bu la jigéen aw taabiina xayri ulil irba wala sax nag ñi nga xamante ne ay mag la ñu ni ci kër gi waaye nag amuñu yitte maanaam dama daal amuñu yitte ci jigéen wala góor ci yitte jigéen min ar-rijaal yi aw tifl mi ngi jee mi mi ngi ah wax xanaa bu nekk ñu koy arkoon kon rek baax na mu ne moom naagale moom naagale kon wala boog mag ñi ñi nga xam ne amuñu seen demañ daal ba amatuñu xalaat ca diggante góor jigéen mina rijaali aw tifli alladi lam yadharu ala awrati nisaa jigéen ñi xale yu ndaw yi nga xam ne xamee guñ xamee guñ luy góor ak jigéen tegi wala yadribna bi arjulihinna rikk nag bu bu bu jigéen ñi di dox mu ne rek waaye yéen ñi way gëm yi jigéen yi bu leen dox di dóor seen tànk yi ndax seen takkaay yi ndigg yi di yëngu li yolama maa yux fii na min seenti na ngir ngir ngir def ko ngir ñoo xam li li nga nëbb ci ay takkaay dégg nga loolu am solo la ndax di dégg sa tànk boobu am na léeg-léeg sax am na léeg-léeg ci xewi na boobu amoon na amoon na yëggut rek amoon na koy dox di yëngu nga xamante ne ngir provocation la moom di di waree ne ko góor gi man jigéen la wa tuubu ilallahi jamian ayyuhal muminuun ay waay yi rikk waay yéen way gëm yi nga xam ne sa sa su ma waxee ba daaneel ngeen def ko ngeen fas ko yéen def dellu dellu leen seen borom ci arteem yi ci ndigalam yàlla la'allakum turhamuun ndax sunu borom ndax la'allakum tuflihuun ndax ndax ngeen texe texe nag moom wax nañ ko texe comme tex da ngay tex bay ca boo bayee ca mbaq bu tooy ba ci mooy wax ñi ñi mu mag ma bu neet ba baaxee dara ma gis am dara te moom da ngay daal di xool kon ne kat melokaanu ji jigéen a ngoog melokaanu jigéen noonu la la la war a mel boo demee ca suuratu tu nisaa yi la laa mu naan mu mu wax na nag ne daalika adnaa ay yoxraf na muuraay gi mu waxoon fii nga day mel ne dañ ko laaj ne ko waaw lu tax ñuy muuru nag ban secret la mu ne mu ne booba booba jigéen ñi naar yi parce que suñ kaw gi rek ba tey ba tey am na ñoo xam ne ba tey amaguñu ay ay wanag ci ci kër yi ci àll ba ñu wax poot ba da ngeen dem poot ba boobu it maanaam penc yi foo ko fekk mag ñaa fa ne mag ña gone yaa nekk ci di di cumaytu cumaytu mooy dox fu jëmu fenn fa nga jaar fa te si jigéen ju génn jëm ci poot ba ñu koy classe di ko tooñ classe su borom nag daal ne yéen way gëm yi yéen jigéen yéen na ngeen di muuru muuraay gi xam nga lu mu jubloo nga mu ne daal di àddina ay yoo raf na loolu de xanaa moo moo gën a jege ci ñu xàmmee leen xam ne yéen ay jullit ngeen faraay yu say na kenn du leen lor ba ba léegi si jigéen ju muuru di di di dox kenn du lay ñeme classe mais soxna si ma gis ah soxna si may wax soxna si daal di daal lay kii day mel ne leeruk gëm yàlla gi gi gi ci yow mooy tax saay-saay bi dalay ragal loolu kon moom loolu ko ci ci ci kon moom leer nañ boo xoolee saar wi yu mu tuddee woon suratu nuur allahu nuuru samaawaati wal ard ca ca ca la nekk mu nekk nag aaya aaya bu kawe mohamit lool waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw baax na ko waaw baax na ko maanaam baa ngi fii nag léegi ñetti awra yañ waxoon boo xam ne yaay xool si na amono liyastazinakum alladina malakat aymanukum si na lam yabluxul xulum minkum salaasa maraat mu ne ay waay léegi digal naa leen yéen way gëm yi nga xam ne su ma waxee ba ba daaneel ngeen nangu ñi seen gone yi yi nekk ci kër gi di liggéey ak gone yu góor yi nga xam ne seeni doom lañ waaye àggaguñ ci doon mag mu kàllaaf waaye nag xàmmee nañ xàmmee nañ góoru jigéen ñetti yoon nañ ko nañ koy nañ koy yëglu bala bala ñoo dugg ñu xam ne salawaat salaatil fajri jëkk fajar ak bu ngeen waxi na tadaawna siyaabakum mina zahira ak bu ngeen di nag weeflu weefal col gi ci ginnaaw ginnaaw añ war a noppal tuuti boobu ñu bari salaatil insha ginnaaw julli gee foofu moom tëri tëri mooy des tëri moo tax kon salaasu awraat yii lakum yii moom may naa leen ko yéen ko moom bu leen bu leen kenn ñaaj ñaaj laysa alaykum wala alayhim junaahun baada hunna tawaafun alaykum babaarikum ala baad léegi nag ginnaaw ñett yooyu moom léeg-léeg kon gone yëpp daal mën nañu xëy sax dugg ci bi def nangam nangam ndax léegi léeg-léeg kenn ku nekk dana baax xel ne kat xale xale yooyu xale yooyu yëpp xam ne ñu ñoo ne ci kër gi maanaam léeg-léeg ñu ñuy bañaax bañaax ci ci ci ci néeg yi te duñ nuyoo waaye yee moom force la moom waaye nag loolu mooy gone yi nga xam ne nag bëtaguñ waaw maanaam maanaam daal jigéen du du jeexital ci ñoom loolu loolu lay wax. kon kon mu ne kasaalika yubayyinu llaahu lakum al-aayaat wallaahu aliimun hakiim léegi nag ñee moom jutuguñu woon maanaam léegi agaguñ ci mu kàllaaf fii nag léegi nag àgg na ci mu kàllaaf taa balaxal atfaalu minkumul xulma falyastazinu kama stazana alladina min qablihim ah ku ci doon mag nag moom waxtu wu yëpp a ci yam balaa dugg moom na na na na istisaan na istinaas yëglu na pay yooyu ñetti yoon buñ ñu ko buñ ñu ko dellu na dellu buñ ñu ko waxul dara na dem kama sta'sana allazina min qablihim ni ko mën ñu defee rek kadalika yubayyinu lakum ayatihi wallahu alimun hakim daal di ne wal qawaa'idu mina nisaa màggat ña jigéen ña allazina laa yarjuuna nikaahan xam ne ñoom seen xel génn na ci sëy sama maam Aminta jàmbaar la mas na wax ne ma Taïf jigéen ñi dañoo demoon soxna ya dañoo demoon ca sëñ bay sëñ jiite di fatwa ne ko ne ko ne ko waaw jigéen joo xam ne dem nga ba sa xel nekkatul ci góor moom ndax ndax ndax man ngaa ndax man ngaa toog noonu te bañ a am borom kër ba ngaa tudd ba ngaa tudd toog noonu te te bañ a am borom kër mu ne waaw ndax bo ndax booba xam nga ci aada Afrique ji aada Afrique ji danaa ne booba Sénégal gi danaa ne booba jigéen sax bu amul borom kër su faatoo bala ñu ko denc nañ ko maye ba noppi loolu la muy indee. mu jël leen kon moom loola kon la ma yimoon ci wax ja mooy ma maam aminta ji maam maam aminta laaj gi mu ko laaj laaj laaj gi gi mu laaj bàyyi seen jiite loola benn ngoog li ma ci yéemaan mooy lu tax mu mu dem mu dem nettali së së sëñ Jalle yooyu nee nañu wax daana jàngal ko tout tànk yi nu ñuy rendee nu ñuy rendee ñu ko waxati gëléem xam xam xam xam loolu sori na ñu ngi dem xar lépp rek da nga jàngal waaye maam it boo ko bi ma ko waxee dama siggi xoolal ko man jaxal ma lu mu ci jublu jublu xam naa kon lu mu ngi mu ngi tontu ay ay ay laaj ci man ak man nga mag xamal ma ak man mu ne ñooñu ñooñu xam ne ñoom kon su su soxlaatuñ kon ñoom am borom kër fa laysa alayhinna junaahun an yada'na siyaabahunna ñooñu ñoom mën na mën nañuy teg yére yi yu mag yi jërëtu ko waaye nag xëy na mu ta bari jaan buñ fa nekk nag di makki makki yow nekk ëpp di defaroo ba jigéene di siinati waan ya sax féef na buñ gënoon a na fegu day xayrun lahun moo gën ndax lakk di ma talat sul jawaarix bi bi bi bi saat ga ak bi daal ga suñ tuwaa kon kon kon léegi mat naa moytu wallahu samiun alim yàlla moom mi ngi diglu te xam na moom waaw léegi nag léegi nag mi ngi mi mi ngi wax nag la ca des nga xam ne laysa alal ama xaraj wala alal araji xaraj wala alal maridi xaraj wala alal amsukum an takulu min widikum léegi léegi gi nag jaxasoo gi man ngeen ne lekk kenn ku nekk dugg ci kër jàmbur lekk fa moo xam seeni kër seen kër yi baay ya seen kër yi ndey ya seen kër yi mbokk ya mag yi ak rakk ya seen kër yi mag yi ak rakk yu ji yu jigéen ya wala seen kër yi baay tax yaag seen kër yi bajan yaag seen kër yi nijaay yaag seen kër yi nangam yi yëpp rek sëñ sëñ ngeen ko ñooñu moom seen i bokk na ñu ñu ñu wala wala foo xam ne yéen ko jëf wala bokk seenu xarit bu leen neexee ngeen lekk mbooloo bu leen neexee ngeen def kenn kenn loolu lépp dagan na waaye daal fu ngeen ci dem nag fasallimu ala anfusikum ci dégg nga de yéen ngeen yéen ngeen nuyu seen bopp mooy asalaamaaleykum ji way gëm yi ngeen di nuyu moo tax mag ñi naan booy dugg ci sam néeg sax te kenn niwu fa wax la asalaamu alaynaa wa walaay ibadillahi salihin ndax ñu ne am na ay junni yoo xam ne mën naa booba ñu ngi toog te boo nuyuwul mangal la bett mangal leen a joggi kañ leen taxiyatan min dila asalaamaaleykum taxiyatan min dila yàlla ñu ko jàngal mubarakatan la salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu tayyibatan ak a tey waay gu nuyoo boobu ak a tey ay waay yàlla ko tànn de kon saa saa suñ suñ ko waxee rek yàlla mën naan nangu ko ñaan ko asalaamu jàmm jëpp jàmm aleykum yàlla nekk ci ci yéen wa rahmatullahi wa barakaatu léegi jeex na barkeem bu yàlla ba ak barkeem ba ak jéem a denc yàlla yàlla ko moo tax wa isa xuyitum bi taxiya ñu la asalaamaaleykum faru duux saxiitu bi ta saxiitu bi taxee ren soppari. xayyu bi xayyu bi ahsana minhaa la wax. nee ko waaleykum salaam wa rahmatullaahi taala wa barakaatu ëppale ko. ahsana minhaa boobu gën boobu gën kawe. aw rudd wax nag wala nga ne ko waaleykum salaam gars yi bari na dañ dañ daan salaamaaleykum. loolu loolu loolu loolu du waxee dara moom. waaw salaamaaleykum du dara da da nga daan da nga daan asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum yàlla nag yomb na. waaw ku ku ku miin lislaam nag man ko nag. te te ndax yàlla ko ko mën ko digal. kazaalika yubayyinu llaahu lakum l-aayaat la'allakum ta'qiluun waaw. kon kon de kon moom daa mel ne ne kon saar wa àgg na. wallaahu tuum naa wax ji wallaahu bi kulli shay'in aliim yàlla nag kon moom bu la xasee wax ba noppi moom nee na xam naa xam naa nag xam naa def nga ba ba ba nga def ko xëy kon day mel ne kon bu ñu tëggoon kon saar wi liñ ci jël noonu. kon ñooñu foofu foofu baal